problème boobu mën nañoo yombal mbir mi ak ci dund bi yooyu yëpp mu ñëwaat ci ñun day neex ci askan wi ñuy sentir acteur politique boo xam ne non seulement am nga impression ci vécu sénégalais yi mais aussi xam nga dëkk bi xam nga jafe-jafe yi xam nga hmm. tolof tolof yi gis nga il faut que ñuy déglu bu baax nos politiques politique yi nga xam ne chaque fois ay question politique ci la ñuy àddu wàllum prisonnier politique wàllum marche wàllu liberté loolu am na solo de mais aussi nekki na askan wi am na solo pour képp ku bëgg dagaan baatu askan wi nga di ci bàyyi xel en tout cas ñun ñu ngi xaar si ñu mel ni président Bougane ak ñeneen tamit li mu def ku mën na def wan ñu ne ñun dëkk bi li fi am dara rëccu la ci et yow bés boo fi nekkee mais di nga mën a parce que jàngoro balaa nga koo saafara nga xam. bu dee bopp la wala tànk wala biir nga. mën koo <laughs> waaw kay nga mën a def ordonnance mais mënoo faj loo xam ne xamoo jàngoroom donc bugg nañ kuy xam suñuy jàngoro ñu mën a am si yow yaakaar pour boo fi toogee nga mën ñu koo fajal. donc yooyu amoon na ci solo lool ci communication boobu noonu. Mm-hmm. Euh, nit ñi nag fii. boo waxee parce que yaa ngi dee média yaa ngi seen TV ngay wax ci communication Bougane Gueye ñu ne foofu nga nekk loolu c'est loolu mooy tëj sa xel. mais loolu laay Ndeye Fatou xelam nag yow mënoo ko ko. Ndeye Fatou Ndeye Fatou loolu loolu laay préciser ma foofu rek. gis nga ah. loolu dama koy préciser. Mhm. Euh, li Bougane président Bougane def démb à travers une conférence de presse yaatal ko. Mhm. su ko un Abdourahmane Diouf defoon. ñu waxtaanee ko ñu waxtaanee ko parce que c'est de l'actualité. su ko. beneen leader politique. bu nekk ci opposition comme bu nekk ci pouvoir defoon. ñu traité ko parce que c'est de l'actualité. gis nga man du ma bàyyi sax xel ñuy wax ne woyi euh, ñoom daal bugaan bugaan bugaan. Mhm. nañu dissocier le bugaan président directeur général bu des médias. Mhm. ak le bugaan leader. politique d'une coalition. Mhm. ou d'un mouvement politique. parce que aujourd'hui mënuñu bu defee actualité ñu sëgg ci et et pourquoi. pourquoi te beneen leader defee beneen actualité. ñun ñu wax ci. te Moriday euh, léeg-léeg sax ñu wax ba wax ci seen defal leen communication. loolu esprit figé la rek mooy li ma la ku teg sa la te loolu ñoom duñ duñ duñ ko ñaawlu. Mhm. mais quand quand il s'agit de Bougane oui ñoom daal telem la yor non non non non le bu le président Bougane en tant qu'acteur politique qui a fait l'actualité quand même qui a été couvert. par pas pas euh, bon par, par nombre de euh, de de de journalistes et mhm. de presse Bougane boobu la ñuy wax ak li mu li mu proposé ak li mu ñëw justement ci wàllu actualité ak jafe-jafe askan wi te loolu man je pense que ne déjà présent bu yeboo ngeen def ko seen xel mu bañ a doon benn jafe-jafe ci seen i bopp moo xam ñi liggéey fii moo xam itam ñi nekk ci biti parce que c'est un homme politique quand il fait l'actualité on traite l'actualité ak moom mi ko def bu ko keneen defee ñun noonu lañ koy defee loolu aussi loolu moom dama ko dama cee teel a mhm. lijjante sama bopp ba noppi voilà maintenant nag ñiy wax après euh, mënoo leen bañ a mënoo leen euh, tere ñu wax euh, que seen teel lañ nekk buggaan la ñu kii non non non ça moom bu yeboo sax ngeen teel koo def seen bopp et puis ñu ñu ñu avancer voilà mhm. c'était juste pour pour pour préciser loolu parce que c'est hyper mhm. important parce que fii ba 2024 nii lay demee su buggaan defee dañu ko fi wax. Mm-hmm. dañ koy traité bu Abdourahmane Diouf defee actualité bu Thierno Alassane Sall defee actualité ku fi def actualité daal ñun ci actualité la ñuy dundee. xam na journaliste ak presse. c'est ça actualité lay dundee en fait. ndax ku ci nekk ak li ngay dundee. Mm-hmm. ñun loolu la ñuy dundee maintenant quand c'est lui nag. <laughs> mais on est obligé de ah, voilà cette euh, ah. actualité mooy suñu essence ah mooy dawal suñuy oto kon mënuñoo bañ a wax ci actualité et puis Bougane Gueye Dany léegi nag mooy ku mën na def sax action politique yi muy def mais Sénégal booy liste ñi fi siiw ñi nga xam ne boo leen tuddee kenn du ne kan la mais moom daf ci bokk. kon su waxee ci actualité ñu ñëwaat ci revenir ci mais loolu dafay yoon parce que boo xoolee semaine bii li ñu fi débattre ci grande gueule yëpp kan la touché wul ci acteur wax nañ fi waa Yewwi wax nañ fi waa taxawu wax nañ fi waa mouvance présidentielle mais ñooñu ñoo def actualité pourquoi moom su waxee ci actualité ñun duñ ci revenir c'est ça mais am na loo xamante ne c'est ce sont des sens interdits yu ñuy wutal nit nit ki nag sa esprit yaaka moom c'est donc ku nekk ak sa esprit ku bëgg nag sa esprit figé tëju ci benn parab mm-hmm. loolu def ko mais ñun bëgg nañ suñu esprit di voyager ñu am euh, un esprit libre important donc ce qu'il ñun dañ koy càmbar dañ koy jàngat c'est une communication te bu fekkee ne moom yoragul nguur lan lañ mën a critiquer ci communication bu mu def moom euh, proposition rek la mën c'est ce qu'il a fait hier dans ouais, sa communication il a fait des propositions léegi moom bés bu yoroon nguur alors ñun mun nañoo taxaw ci bés bu waxee ak bés bu liggéeyee ñu seet lu ñuy càmbar lu lu positif ak lu négatif ci action am mais ku yorul proposer la mën mais ci proposion yooyu ci nga mën a def jàngat mais koo xamante ne dénkoo ko cent francs mais amoo loo koy critiquer ci yenn waxin lim proposé rek nga mën a càmbar la ci doy nga jël li nga xamante ne ay limite la bu boobaa yi dañ koy wax mais wax na ci actualité te ñun actualité moo ñu ñor li ñuy dund jamono yi ñun si loolu la ñuy bëgg a waxtaanee duñ waxtaanee si loo xamante ne weesu nañ ko wala gisaguñ ko donc sa communication elle a ci sur le cas de Ousmane Sonko fi mu ci abordé foofu man d'accord naa ne moom am na ci au moins dépassement am na décalage par rapport aux autres leaders de la classe politique parce que ñeneen ñi lu ñuy wax waruñ ko tëj condamner rek ñu def ak critiquer le régime yem ci ah. mais moom jéemul nekk fii di juger ku tooñ ak ku tooñul moom li mu wax mooy day ñaan njekk pour des raisons humanitaires mais c'est ça la communication qu'il faudra euh, porter parce que dans le cas de Ousmane Sonko ak ñi nga xam ne à le faire c'est pourquoi je me demande où sont les autres leaders politiques mais mu ngi noonu te loolu daf ñu yóbbu li nga waxoon dinañ ci ñëw que dafa mel ni euh, li dal Ousmane Sonko na nanu ma baal mais fa mel ni dañ ko koo yéene nag tamit de non seulement ñi wane nañ posture yéene ko ah. mais gis nga même am na ñu koy waxal rendruñ ko service parce que tey niñ ko bëggee jël def ko comme ku lompañ ku loof ku feebar bay wax benn feebar bu ñu nee commencé na ko muy insuffisance rénale loolu c'est pas positif pour quelqu'un qui veut diriger sa pays parce que fii gis nga da ngay gis homme politique yu ñu bëri nee nañu wéruñu bokk na si liñ leen di euh, kii nii koleel chaque fois bu ñu nee dañu bëgg a laaj réew mi ñaan wérul wérul donc ñoom dañ ko bëgg dugal ci cadre ñu wérul ni <laughs> donc communication boobu en voulant def victimisation ci la personne de Ousmane ko sax ñu ngi koy porter préjudice te xamuñu ko parce que ñu ngi wane ne moom santeem dafa précaire mm-hmm. je pense que loolu soxlawu ko ku bëgg a jiite réew mi dafa war a bien portant wane ne moom taxaw na pour mën a saafara jafe-jafe yi à tout temps à tout moment et fu ñu ko bëggee mais koo xamante ne dangaa feebar am yenn feebar yi gaw ma ne sénégalais yi mën nañoo am à cent pour cent yaakaar ci yow trop de victimisation nag dafay dem ba négatif ñoom rendruñ ko service ñi nga xam ne tamit dañuy expliquer naan grève de la fin résistance loolu noonu mais il faut être de bonne foi parce que ay gandi bi ñuy jël joxe comme exemple il n'est ni musulman nii chrétien ñoom am nañu seen religion bopp foofu noonu en Inde certes léegi bëri na jullit parce que y a plus de millions de de musulmans là-bas donc mais gandi nekkul musulman donc bu ñuy joxe exemple il faut contextualiser vouloir nag justifier di nga dem ba dugg ci kàmb ne lu ma fi dugal man loolu je di en toute honnêteté. Mhm. ñi am na ñoo xam ne ñu ngi communiqué ci grève de la faim bi rendre wuñ ko service. d'accord te bés bu xippee ba yëpp jàll dina xam ne ñii. indi nañ ko gàllankoor parce que yooyu yëpp da koy dab dans le temps donc loolu c'était une parenthèse que je voulais ouvrir. Absolument. donc li mu wax ak président ñaan ko c'est ça la communication qu'il faudra porter mais pas nekk fii di indexer état naan ceci n'est pas normal lii acharnement la lii lii la parce que boo indee acharnement rek ñu tegal la avant acharnement li fi jot a xew yëpp te bu boobaa balance bi day peser avant l'acharnement il y a eu des propos il y a eu des discours il y a une violence inouïe bu dëkk bi dund lu musta am ñu dem bay suñu mémoire collective ñu koy lakk ñuy fekk ay honnête citoyen lu ñu liggéey loo xamante ne investir nañ ci ñu yàqal leen ko jël nañ ay avenir abrégé ko foog ngeen ne immigration clandestine bi ni mu amee flambé est-ce que perte d'emploi bi bokku ci comme cause te perte d'emploi yooyu jóge na ci ay violence yoo xam ne ci ay manifestation la am ci dëkk bi parce que tamit nit ki da ngay xool mbir ci généralité mais bul xool tey tey rek mais boo defee généralité di nga xam ne foo teg fii lii rek mun nga fa teg leneen la donc il faudrait ci communication ñu jàppale Ousmane Sonko te bañ koo gën a diigal gën ko suuxal parce que c'est pas le question jërëjëf Serigne Touba. jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Saliou. ci njekk bogaan googu lay tàmbali bi ma ko dégloo démb mu ne ñu ngi ñaan président Macky Sall ci njëkk. mu bàyyi Ousmane Sonko mu ñibbi. ndax daa feebar. sama xel dem ci bi président Macky Sall doogee ci dialogue ba biir palais ak ay citoyens sénégalais comme Ousmane Sonko. ci biir diversion mu ne ci njekk ngeen ñaan ma troisième mandat ma bàyyi ko Bougane Gueye ci njekk may la ma ñan la ma troisième mandat bi Bougane Gueye Dany lu ne yàq na ko ci Macky Sall sunu yëf la ñoo ko moom waruñoo ñan ci njekk nangam ak nangam mais tey Bougane Gueye Dany googu moo ñaat di ñaan ci njekk kan lay ñaan président Macky te pourtant justice moo téye Ousmane Sonko kon mun nañoo bañ a ñaan mun naa bañ a ñaan président Macky Sall ci njëkk ñu bàyyi Ousmane Sonko parce que Macky Sall yoonam nekkul ci justice mais benn côté yoonam ngi ci justice ndax gratification mun na ko def muy grâce yi c'est pour dire que gis nga dialogue waxtaan waxtaan lu mu amul solution du ci am njëkk nga gabal ba bañoon démb tey njekk googu da koo nangu tey ba ñaan moo tax nañuy doxee saa su ne ci waxtaan di ko jiital saa su ne déglu naa ko démb et je très souvent comme